mukarraman bi qirat taahaati wa sadadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalib yi yéen ñi ñuy seetaan ci sunu site bi ñuy wax sunu actu ñuy ànd ak yéen ci téere sëriñ son yi bu mbakk radiallahu taala anhu bi ñuy wax sunu xoratul xay ni xoratul xay ni ñuy ànd ak ci guddig naafile yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci guddig ñaar fukkeel ak benn guddig ñaar fukkeel ak benn danañ ci julli ñeenti rakka ñeenti rakka rakka bu nekk danañ ci jàng fatiha fatiha lañ ciy jàng benn yoon ak xulxu wallaahu ñaar fukki yoon ñu baamtul leen ko guddig ñaar fukkeel ak benn danañ ci julli ñeenti rakka rakka bu nekk ñu jàng ci fatiha benn yoon xulxu wallaahu ñaar fukki yoon lañ koy jàng ñu baamtuwaat ko guddig ñaar fukkeel ak benn danañ ci julli ñeenti rakka rakka bu nekk ñu jàng ci fatiha